voilà mbokki image yi ngeen di gis noonu mooy liñ neen indil ci ndaje gi nga xamante ni moom la gouvernement scolaire yi nekk ci département Dakar amaloon fii ci place de la nation place de l'obélisque ndax ñoom dañoo génn tey ngir ñaxtu ndax benn mot d'ordre lañ am di ko jëmale ci suñu autorité yi nekk ci wàllu éducation bi mooy ñoom ils veulent ñoom danoo bëgg a jàng ndax sax sànq yaa ngi leen di dégg ci image yooyu noonu ñu ngi wax naan nous voulons étudier te tamit am nañ ay recommandations yoo xam ne ñoom dañu bëgg maan autorités yi bàyyi ko xel mooy lan mooy ñu changer leen seen programme ñu repousser leen euh, bac bi. ñu changer système éducatif bi ak it tamit ñu réduire li nga xamante ni moom mooy programme euh, gi fi nekk bokk na ci euh, ay doléances yoo xamante ni bëgg nañ daal ñi nga xamante ni ñoom ñoo yore wàllu njàng bi daal leen ci bàyyi xel ndax lenn rek lañ bëgg moom mooy ils veulent étudier. man Fatou Bàcc laa tudd teewaay bi damaa ñëw rek ndax yaay laa ñoom sunu doom yi ñu war a jàng. ñun tam ñu nekk si milieu scolaire bi tamit maîtresse la mais dama man sama ñaari seexi ñoo ngi jàng mais boobu ba tey muy ñoom muy see muy sama doom yi muy ñii taxaw ñoom ba tey xale yi jànguñu nañ ñu jàppale ñu jàngale xale yi te yàlla tax dimbali leen rek te yàlla tax ñu dawal yërmande ku ciy papa xam ne papa nga ku ciy yaay xam na yaay nga loolu doon moo fi indi nag pour jàppale xale yi donc. ñoom it li ñuy ñaxtu est-ce que tamit jotul nguur gi tamit bàyyi leen xel ngir saafara mën a. bàyyi xel sax nag à 100 pour cent ah da lay war a bàyyi xel sax nag. yaa ngi dégg mais man xale yi ñoo ma indi tey élèves yi dañoo manifestation ni mu waroon demee mooy élève bu ñëw indi sa yaay wala sa papa ñu àndandoo marche xam nga li ma la wax maître yeeg maîtresse yeeg ñëpp xool marche bi seen yaram daw ñu jàngal xale yi ñii ñooy avenir u ëllëg ñun ci lii ñun ci ñii la ñu yaakaar loolu dong moom fi indi du dara. li waral li waral ndaje bi mooy dañoo toog trois ñu ngi trois mois nii élèves yi jàngiwuñu bu ñu ñëwee huit heures neuf heures ñuy wàcc dem ñibbi ñun élèves yi nga xam ne dañoo war def examen ak ñu rakk yi nekk dans les classes préparatoires naka la ñuy mën a amee niveau te saa yu ñu xëyee semaine bi yëpp benn jour lañuy ñuy jàng ñu bëgg euh, professeurs yi dellu ci classe yi te ñu def composition parce que dafa am importance on ne peut pas faire les concours les concours qu'on veut de terminale mënuñ ko def te amuñ ay bulletins donc li ñuy ñaan mooy professeurs yi dellu classe. et que date bac bi ñu fixé vingt 27 juin ñu repousser ko parce que li des bëreetul te on n'est pas encore prêt suñu programme dafa bari waaw. yaa ngi yaa ngi wax sànq ne yéen élèves yi 48 ngeen mhm. euh, ñun élèves yi élèves L yi par exemple on a 40 leçons en histoire et géographie te fi ñu toll nii 10 semaines moo des si bac te troisième leçon bi lañ defagum ba tey élèves élèves S ñu ngi yor plus de 30 leçons en en te loolu moo mooy seen ay dominant donc bu dee dañoo nara dem bac. te tey jii pare wuñu suñu programme ban finalité loolu mën a am. wàllum abri bi. ah wàllum dañuy dañoo bëgg datu examen yi ñu pousse ko c'est-à-dire que mënuñu tarder trois mois mm-hmm. oh, depuis décembre jànguñu mois de janvier amul benn semaine bu ñu ci def semaine bu normal soit on vient les lundis on fait cours et on rentre jeudi ba euh, mardi ba vendredi on fait pas cours donc li ñu bëgg mooy élèves yi dellu si biir classe yi mm-hmm. maintenant daf dañuy lancer tamit benn appel Parce que dans la sous-région, il se trouve qu'à à, à Sédou, on a eu avec le collectif des gouvernements scolaires qu'il y des écoles qui sont toujours dans des abris provisoires. Euh, dafa am ay écoles yu nekk Sédhiou yoo xam ne ba tey ci ay ñax ci ay néegu ñax kon la ñuy jàng te loolu c'est inadmissible te ñooñu ay élève lañ comme ñun ñi nekk fii Dakar wala ñi nekk Kaolack wala Saint-Louis lan ngeen fas yéene def dee gouvernement bi ak euh, seen enseignants yi jotuñu juboo ci kàddu incha allah bu ñu juboowul ñun collectif bi et on va ñoom ñaar ñëpp la ñuy waxal parce que enseignants yi mënuñoo comprendre ñoom euh, bu ñu ñëwee privé duñu bu ñu ñëwee ci public bi ñu jàngal pare ñuy dem ci privé yi di leen jàngal di defal ay composition alors que ñun ñooñu ñooy bokk même épreuve yi ñuy war a def bac le 27 juin euh, qu'il trouve un accord avec avec avec avec les les professeurs. ñun bëgguñu leneen jàngi lañ bëgg. dañoo bëgg a jàngi élèves yi fi nekk ñëpp loolu moo leen fi tax a ñëw dañoo bëgg a dellu suñu ci classe yi on ne fait pas juste parce que dañoo am envie dañoo am envie génn non c'est un c'est une cause noble dañ ko bëgg a def parce que dañoo bëgg a jàngi on veut un avenir meilleur loolu lañ bëgg. programme tamit bëgg ngeen ñu leen waaw bu baax parce que programme bi dafa bëri trop programme bi programme bi dafa bëri te mënuñ ko jeexal fii ak datu bac bii ñu wax donc ñuy ñaan euh, office du bac comme ñoom ñoo yor loolu ñu wàññi programme bi